mbokki internet di baaxoo seetaan info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jaajëfal ba tey ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké waaye tey ñi ñu ngi fii ci garage daar Moussi ñu ko xam koñ bi ñu naan jéemoon tey nag dañ fi ñëw seet si seex ndax uh, ay fan ci ginnaaw ñi nga xam ne mooy sambabo yi dañ ko seet si jëflanteeg moom ba tiiree ko li nga xam ne mooy ay balu fital waaye daal di nuyoo ak Cheikh rek mu gën ñu expliquer bis boobu nan la demee woon ak kañ la woon ak ñi ko ñëwoon nga xam ne ñoo ñëw tax uh, ba teg teg ko lii tey mu nekk mooy ñu dóor ko ay balu ñaata nit lañu woon ak ndax xàmmee na leen ndax xàmmeewu leen Cheikh ngi lay nuyu waaw waaw xewoon. daal al samedi ci guddi la mu tëdd waaw ma tëdd fii ba ma dégg benn buur bi ma ubbi fee rido bi ma pousse rido bi gis ne waa mu ngi taxaw xar yi daw ma génnee waa dafa ñëw pour dóor ma jaas sottiwul. léegi bi dawe dawee continuer di ñakanto ñoom xar yi ñett ñi ci dess nak na xam ci auto bi lañ taxawon ci lañ armé wu door ma tire ma ñetti bal benn bal bi defena mo dal sama tànk waaw. Euh, bal yoy biñ la ko tiré dem nga hôpital ndax bobu Cheikh biñu ñëw ndax mëno wowon police bala ñoo dem ñu mëna ñëw wala ak euh, biñ la tiré bali euh, nan nga def bi nga démé hôpital lan lan la wax. wa man bima ma tiré bal dama bali la ndjay mi dëkk fi mo ñëw jappalé ma. jël borom taxi bu nekk fii ndax boobu yëf yi yegg na foo xam doon xaar sax wóoru ci woon léegi ci lañ jël taxi dem jéemul ñu jël ambulance yóbbu ma jannatu waaw. Euh, bi nga demee euh, ñi nga xam ne ñoo fi ñëwoon ñaata nit lañ ndax ràññee nga leen. xàmme wu leen waaye man nañ ñeent ndax euh, ki ma doon dóor jaas gis naa ko. ñett ñi ma doon ñett ñi taxawoon ci oto bi gis naa leen waaw ñoom ñeent ñëpp gis naa leen. xar yi mujj nañu dem wala demuñu. non xar demuñu. Aïcha kon mbokki na yi mi ngi noonu Cheikh la euh, ñu gis euh, li nga xam ne dund na ko fii ci biir tuubaa muy ay defkatu ñaawteef yoo xam ne tollu nañ ci ñeenti nit ñëw këram attaqué ko euh, doon jéem a sàcc li nga xam ne mooy ay xaram ba daal koy tiire bal ñun nag ñu fi indi dëgg dëgg dëgg amaana sàcc gi dëgg la amaana jëf ji waaye nag nit ñu ko dimbale sa yàlla tax ndax dem na hôpital sa ñëpp xam ne ne ay moyam demewul noonu Cheikh bi nga demee hôpital ci tànk bi lan lan la wax ak wàllum faj bi waaw ñoom de ñu ngi góor góorgóorlu xam naa ne ñu siy góor góorgóorlu ci wàllum faj moom wax dëgg yàlla waaw suñu borom it mu ngi def tawféex jaam ñaa ngi ci jàpp ndànk-ndànk mhm. waaye mi ngi ñu ngi koy faj daal. Mhm. bal nañ ko wala. non dafa doon problème yu sew yi la il faut dañ ne dañ koy entretien rek mhm. pour mu ma a génn par ndànk waaye nekkul lu ñu mën a ndax dafa bari ndax euh, boo xoolee kayitu rajo bi da ko gis foofu da xam loolu xel nanguwul sax pour ñu di ko opérer waaw. waaw waaw. Aïcha kon mi ngi noonu jëf sa yàlla tax fi sabilillah comme ni ma ko doon defee samay vidéo sociale ndax ko xam Ami Ndiaye Infos Rewmi xam ko ci social képp koo xam ne jaaxle nga wala am ngay problème rek dinaa fa dem dëkk la sama micro waxtaan ak yow ngir jaamu yàlla ñi nga xam ne dañuy jëf sa yàlla tax ndax Sénégal bari na ñuy jëf sa yàlla tax ndax kii uh, sëriñ daara la ci jàngale arxuraan la doon yëngu ci tàggat ay ndaw la doon yëngu ba natt bi dal ci kaw mooy ay defkatu ñaawte fekk ko fi attaqué ko rawatina dóor ko li nga xam ne mooy uh, balu fital comme li ñuy wax rek ñàkkum sécurité ba yenn saa ñu koy ci yenn ko koñe ndax ku mel ne garage daar ñëpp xam na ne ñàkkum sécurité bi fi nekk waaye nag lu ci mënti am rek jëf sa yàlla tax dina joxe numéro téléphone am fépp waaye mën a nekk nga mën a jokkoo ak Cheikh nga mën ko dimbale ci xeebul yéemul ndax daara la yor mënudut a jàngale fii mu toog mënudut sax toog ci banc bi pour ñu jël ak moom interview dañ ko fekk ci matelas bi nga xam ne ci la toog ak métit boo xam ne mu ngi koy yëg euh, ci yaramam Cheikh tey bi li amee police ñëw na fii wala dem nga def déclaration wala ba tey defoo ci dara dem naa gendarmerie def première jour ñoo ñëw nañ fa deux fois waaye man kew laa ne fi mujj gis dem naa police def déclaration ñoom gisaguma leen fi wax dëgg yàlla. ba tey nga demee lan lan la waxoon leen fi ñëw wala. waaw waxoon nañ ma dañ ma woo waxoon nañ dinañ fi ñëw gisuma leen dégguma leen wax dëgg yàlla. police nga demoon. police jannatu comme ni mu ko waxee rek dem na commissariat jannatu waaye ba tey gisagul ñi nga xam ne ñooy police yi accès guñ ci këram Cheikh dafa mel ne sàcc gi du première fois ñu di fi ñëw dafa mel ne yàgg nañu dugg ci biir kër gi yàgg nañu tànte di jël xar yi nga xam ne moom ngay yar waaw bi mooy deuxième fois bi ñu ma ko fi njëkkee def bu baax léegi mën na ay année yaakaar naa war naa mat cinq ans wala quatre ans. loolu jotoon xar yi asalam ni dab leen nangu xar yi mhm. waaw waaye boobu daf fekk biñ leen di yëg ñu génn kër gi ñu daw topp leen ña leen toppoon ba dab xar yi doon nañ leen jéem a tiire waaye yàlla da ko dogalut waaw. kon daal mën nañu xam ne léegi defkatu ñaawtee fi yamatuñ ci paaka ak jaasi ay bali fitar rayal lañu yor yoo xam ne dañu koy tiire ne ñi ngir bëgg leen faagaagal ngeen yóbbu seen alal. waaw loolu mooy wér sax ndax man mi jàmmarlook ñoom xam naa ne ñoom yitte yi ñu defoon ci man suñu borom na moo ko dawalut waaw ay yitte yu bare bari lañ def ci man pour ndax ñett ñu yor arme ñoom ñëpp tiiree ndoo loolu suñu borom moo ci rax rek waaye bu ca raxutoon moom kon tey ji waxatuñ ko waaw. ñu dem ñu dellu si ci jaasi ji bi ñu jëlee jaasi dal la ko coor da nga tul lu tax jaasi bi duggul wala ni la ko dóoree moo baaxul. non yàlla moo dox diggante moom sama diggante ak jaasi ndax waa ji yegg siwul mënu tax yegg si man. Mm-hmm. waaw bi dóoree dafa daanu moom. acca kon ba tey ni mu ko waxee rek ki nga xam ne yoroon na jaasi ji euh, doon ko dóor bi mu dóoree sax euh, dalul waaye ba tey rek ma waxaat def katu euh, lu baax li sa yàlla tax ñu gën a jàppale dëkk bu sell bii di Touba ndax ñëpp xam na ne neexul jël sa alal yar ngir ëllëg bëgg ko jaay bëgg ci dundal sa njaboot wala nga taxaw sa njaboot ñu ñëw fuqati ko say loxo nga ñàkk sa alal noonu amaana man nga ci jot amaana doo ci jotaat metti na trop waaye lu ci mënti am rek man li ma indi dëgg dëgg dëgg mooy jël sa yàlla tax fi sabilillah ndax fii mu amaana mi ngi leen yor fi mu toog bëgg na dundal soxnaam sa amaana loolu yëpp jamono ji ñu toll mënatu ko ndax def ko ti ñaawtee fi kat gàllankoor nañ ak demam ak dikkam comme ni mu ko waxee rek sant yàlla ndax yàllaa ko xettali kon ëllëg neen lañ doon wax ndax euh, xam nga ne ñetti balu fital du caaxaan ci doomu aadama amaana alhamdulilah ba mu dalee ci tànk ndax mënoon na dal faneen ci yaram moo xam ne dina ko gën a indil yeneen jëyee seex lan wax autorité yi ci dëkk bi lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo suñu wàllum sécurité ndax ñu bëri kat jamono ji ñu ñu ngi jooy sécurité bu baax a baax baax ci biir balaa ñu yegg ci loolu sax am na dong boo xam sax bal yi fii la ko laal ci loxo. dong yi dañoo waaw am na dong yi njëkk bi bal bi dalee xam naa li ñuy gaaw gaaw pour delluwaat ci biir. Mhm. am na si dong boo xam bal laal fi. sécurité réew moom man daal jaaxal naa moom man sama jëm bopp mu dëgg di dëgg rek man gisuma ko gisuma sécurité ndax ma def lii xam ne. réew mi am nañ matuwaay matuwaay bu toll ni bu leen neexoon du am vingt quatre heures te jàppuñ leen te ba léegi amul benn bunt bu ci feeñ kon buñ ne sécurité ci réew mi daf may jaaxal te it man amoon naa possibilité jenn ngànnaay comme ñëpp mm-hmm. waaye bu ma ko li ma ko doon moytu damaa dëkk ay xare gis nga néeg baa ngi nii ay gaala fi nekk mm-hmm. maag dong yi ñu ñoo bokk parce que néeg bi yoroon arme mu am jee tey jii nga am jafe-jafe di yëg wàcc mu yàq sa liggéey yàq sa daara loolu laa ci doon bañ ba ca toppit boo yoroon arme tey ak ni ma amee possibilité jàkkaarloo waaje face à face muy dóor jaasi kon mën na ko téye mën naa ko tiide te it kon damay amaat même jafe-jafe dañuy jël jóbbu ma si kaso gi ñoom ñu kon ne seen yitte man sama liggéey taxaw yooyu yëpp doon naa ko sóoraale ba li may yor jur ak liñ may attaqué attaqué Euh, mo muñon rek te yalla tax wa bañan baña yor arme waye nak Cheikh ndax yorati ak juroor na ci jamono juñu tollu ndax yarati ngir investir ñepp ngi naan ñak gi ci senegal ay ni di jël seen xar di investir di tek seen projet ndax wóorati na taxawal dara. wa xam nga aduna kenn tok lu xey as gor li mën moy def ay yitte ngir baña dem taxaw ci kenn di kolak. laaj waaw wala bañ di fitnal nit ñi waaw loolu mooy jëfinu góor lu la ci fekk nag nga xam ne loolu moo la ci fekk waaye nag toog loxo yeneen moom man ñoom mënuñ ma koo tax a def xanaa dañuy yóbbu bakkan bare. Cheikh wàllum ordonnance yi hôpital Frey ndax euh, man nga ñu xaymaal ndax bëgg nañ nit ñi dimbalé ko torop ndax ki tank bi fi mu nekk war na faju war na soxla lu bëré bëré bëré bëré nit ñi dimbalé ko sa yalla tax amaana metti na lool bëgg doon liggéey to liggéey lepp nga tok sa togaay metti na sa ay doom adam rek tek lako hôpital ban taxaw ak jamono ji ñu tollu lan mo des ci ak fajj ci yow waaw côté boobu mënu mo wax né hôpital nekkuñ di fajj ndax it nit bu dee wëree ba ngay dem yobala nga metti bu tara tara yàlla dogal dinga dem hmm, ñu def ci ay yitte xëy sax yitte mel na ne amul am na noo xam melo na ko ay ci ay kilifa waxee mel na ne soppiku na ba it ñu ngi ci góorlu ci yitte yi ñu ngi faj moom waaye hôpital xam nga fii ak jant dafa jegewul jegewul te it faj moom kon xam na ne Sénégal moom neexu fi deret mm-hmm. ñu sant yalla daal xam nga amaa jëm liñ ci defagum ci xaalis mu mënu su ko wax man xawma ñaat la ci def si xaalis xaw ma ko wax dëgg ndax it mu may dem dama yor sama xaalis rek lu ñu ma liir rek ma jënd hmm, ayul ci këyit ayul ci dara. ñu ngi wax mbokk yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan bëgg nañ la dimbalé lan nga leen wax ngir ñu mën la dimbalé nga faju ba delu wat ci sago rawatina taalibe yi nga xam ne yaa ngi leen di jangal wa man dama baaxul di laaj dimbal. li baaxoo mooy lépp lu mu waaye defal xanaa dag may bett defal ma ko loolu daal la baaxoo taal bi it suñu borom mi leen fi indi xëy na mën nañu suturaal taw feexal ñu ba jafe-jafe lañ tero dund ñoom duñ ko dund waaye nag réew mi daal laay wax man damay wax pour réew mi yépp la mooy nuñ ma fexe ba réew mi am jàmm ndax it li baaxul ndax li may jur mooy ku nekk di fajal sa bopp te bu juree loolu dana am ku ci lor koo xam yoonam newu ci mhm. te lolu euh, liko wara war moy ñi fi yaakaar ne ñom ñoy yor sun sécurité ndax bo xolé tay ji bo gennu ni ba ni nga yeggee janatu yalla seer na da nga dab fukki police ci kaw yoon waaw da nga dab lu mat fukki police ci kaw yoon wala nga dab lu mat fukki gendarme ci kaw yoon waaw pourquoi goudi gi pourquoi goudi gi say say dugg ci dekk mën a fetal ak fetal ni mu xumbee doo dégg doo leen gis après il faut yaay doxaat dem ci ñoom ndax hmm, loolu jaaxal na te fi mu ne nii ñun ñiy jàngale alxuraan xam nañ bu baax li ne ci réew mi ndax man bu ma jëloon sama xale bi tey sama benn dongo gaañ ko tey gaañ bu néew néew bu demee hôpital police may jël si loolu moom ñun xam nañ ko léegi pourquoi kon buur def ñaaw ñaawteef bi dafee nit dara. il faut yow yaay leen di fekk def ay démarches def ay yitte te ba tax du tax sax sa yitte mat man loolu moo ma jaaxal ma kon léegi lan moo ne ci réew mi ak lu nit ñi dund waaw loolu man moom ma jaaxal man Cheikh comme kàddu yi mu wax am na solo lool euh, mu joxe numéro téléphone am rek képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak Cheikh wala bëgg nga ko jàppale ci taalibe yi xëy na nit euh, mënul tàllal loxoom ne jox leen ma ndax ñëpp xam na ne li ci gor nangoo liggéey di tedd di dundee waaye ñëpp xam na nag situation yi muy dund ndax yor daara di jàngale bëgg a dox mënutoo dox tokki sëy sax mënatoo ko kon metti na ba fa metti yam waaye nag ñëpp xam na li ci doomu gor tàllal loxo ñaanoo ko yàlla bëggoo ko surtout ku doon liggéey di tedd waaye faaw nga joxe sa numéro téléphone Cheikh ñëpp ñoo xam ne bëgg nañ la dimbale wala bëgg nañu dégganteeg Cheikh incha allah ñu mën la dégg. waaw loolu moom jafewul numéro bam 77 la 608 72 32. waaw. numéro téléphone yaa ngi noonu am na orange money am na we euh, lépp lu ko waaye mën a jàppale rek sa yàlla tax nga xam ne sa sa sa sa sa grand moo toog fii mu toog ñu xam ne sa sëriñ moo toog fii mu toog tey ñu xam ne sa mag moo toog fii toog ñu xam ne suñu doomu réew tey moo jaaxle bëgg ndimbal sàkk ku ko dimbale sa yàlla tax rawatina ñi nga xam ne def katu ñaawteef lañ teg ko tey toogaay bii ñu dem ba xam leen que ñii ñan la ñi def ñii lan la fan la ñu dëkk ak lu tax ñu def lii ñu ngi koy sàkku ci ñi nga xam ne ñoo wàllum yoon ci biir Touba ñi ngi koy sàkk ñi nga sécurité publique bi nga xam ne ñoo nekk ci biir Cheikh looy tëjee. man ni li may tëjee mooy réew buñ ne dafa am borom borom dafa war a wane ne dafa maa moom réew mi waaw dëkk ne dafa am borom boroom dafa war a wane ne maa moom dëkk bi kër it buñ ne dafa am borom borom dafa war a wane ne maa kër gi waaye eh, li ma waxoon ci ginnaaw rek li ma jaaxal daal mooy lu tax saay saay si liñ bëgg a def def ko te dara du leen si fekk man daal lu jaaxal na waaw waaw. kon na maa ngi sant ñëpp. Eh, ci jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi info mi di seetaan eh, di sant Badara bu baax ak ñi mu dendal nga xam ne tey ginnaaw yàlla bu ñu ñëwee gerem kita la ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci taxawaay bi ndax nee nañ xarit li lay jariñ mbokk li lay jariñ bu sa bët rek mu fompal la ko taxaw la la ba li nga ne doon sa naqaru xol jeex ci ko ngi leen di sant ñoom it di leen gërëm bu baax di sant Serigne mi nga ne bu ma bu ma micro rek mu gàddu caméra bi topp ma maa ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla jàmm ak se ci barke mu Mouhamed kii toog nag lépp lu ko waaye mën a dimbale rek mi ngi lay xaar ci numéro yi nga xam ne mi ngi ci baaru écran bi di daw dimbal sa yàlla tax jëf sa yàlla tax laaju ko kenn de waaye lu war la ndax dimbale ko fii mu toog mu mën fi jóge ba delluwaat ci activité am rawatina dong yi nga xam ne mi ngi leen doon jàngal alxuraan jërë ngeen jëf